waaw ñun ñoo dëkk ci koñ bi xëy nañ ñoom wax dëgg yàlla defar moo leen fi indi mais dañoo wax rek dem mais waaw ñun suñu problème mooy tabax yi liñ ci wax du solution bi ay dañuy jëli seeni borom ñu ñëw ñu ubbiwaat ko ku ci nekk boo nekku sa place ñu nanga ko jox kenn du loolu def nañ ko fi am na ndaje moo wax ni moo ëpp mii dajale nañ ko fii sëñ Modou Lo Ngabou ñëw na fi ñëpp ñëw nañ fi ñu wax leen li ñuy daj koñ bi fii man violé nañ fi sama rak agressé nañ fi sama xarit benn bu dul ñaar fii ku fi génn maire yaa ngi ni duñ duñ timis duñ ko jéggi bi fii te ñoom mosuñu fee def seen tànk xamuñu li ñu woo akoñ bi li ñuy daj kon naan dañ koy defaraat wala boog dañuy indi seen i borom ñu loolu du solution tabax jëli ko fi mooy solution bi mënuloo mënuloo jawbe mi ngi nii duñu bàyyi mu jóob duñu ñu fenn chaque jour dafay ñëw di di di jàmmaarloo gars yi mais mënu ci dara ñun ñi biñ jëlalee suñu bi biñ jëlalee suñu bopp suñu méthode bopp ñu ngi ne dañ fi dee xeex ak ñoom fu mu mujjee biñ ay jaasi la ñu génneel te ñun ñu ñëw yor sécurité fii kon dañ nañ fi lu ne kon ñoom ñee naan ay dañuy tijjiwaat place yi digg gi loolu jàpp ma ni mooy solution bi solution bi mooy nañ fi jëlee tabax yi wala boog ñu indi fi marché sant ko fi waaw